aleykum salaam ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaara di leen balu aq di balu aq ñépp di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ko ñaanal sunu borom mu yàggal ko fi te wéral ko di nuyu jullit yëpp it di leen ndokkeel di ndokkeel euh, jullit yi fu ñu mën a nekk ci àddina bi di nuyu ci seen seen bi di MKTV ak GMT bi nga xam ne daayira Muxaddamatul Xidma bi yor jumaay Tuuba ñoo ko euh, saytu di ànd ak yéen ci ay waxtaani diine ak ay émission yoo xam ne daf leen di laabire seen diine luy jagal seen àddina ak fële bokk na ci émission yooyu émission bu am solo bii di émission gàggantiku nga xam ne dañ koy ànd ak yéen ci weer wu nekk ñaari yoon euh, di ci ànd ak borom xam-xam bu mag sëriñ Mbàkke Abdourahman te ji ñëwaat nañu fi ci Daaru Salaam Ndaam ngir fas yéene amal euh, émission gàggantiku euh, bii nag tey xam ngeen ne ñi ngi ci jeexitalu saxbaan weeru saxbaan kon Ramadan jub na di weer wu tedd wu barkeel woowu nga xam ne eh, weer wu jullit war a profité la ngir yiw yi nga xam ne moo ci nekk eh, sunu sëriñ tamit sëriñ bi Cheikh Ahmad Bam radiallahu taala anhu fonkoon ko lool ya xayra dayfin ata bil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi nga xam ne weer la woo xam ne maanaa dañuy ful yiw yi kon nag képp kuy ab jullit war na su weer wi jubee nga nga nga fàttaliku atte yi nga xam ne lislaam tegtale ko yi nga xam ne moom la moo ci war ak yi nga xam ne dañ ko ci moytu yi nga xam ne dañ ko ci sib yooyu moo tax laaj yi nga xam ne am nañ ko tey nag yëpp dafay jëm ci weeru koor ngir jullit bi xam daal nan lay sàmmontee ak diineem ci biir koor gi euh, incha allah ci la ñuy jëm xam naa bokki ndaw ku ndaay yi moom soo dee wax waxi waajtaayu koor xam naa émission bi boo yaxee bu ñu koy seetaan danañ ci tayee lool waaye nag euh, day am solo day am solo ñu ñu ñu ñu ko ci laaj yu mel nii. Mhm. kon sëriñ bi dañ lay jox nga nuyoo bu ko defee ñu jublu ci laaj yi. bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu taala wa sallama ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain hmm. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëriñ Abdul Ahad maa ngi lay nuyu di nuyu mboole mbokk yi nga xam ne ñu ngi topp gàggantiku hmm. di leen ziare di leen ndokkeel di leen ñaanal jàmm di sàkku ñaanal ñu ko tàmbalee siyaare ndokkeel ci sëriñ Mouhamadou Mountakha ko ñaan yàlla sàmm ko ci weeru tedd wi ñu nekk ak koor gi ñu dëgmal ñaan yàlla ñu àgg ci ak jàmm màngu ko jàmm weesu ko jàmm te dellusiwaat ci nun ay ati at di siyaare ñëpp jërëjëf sëriñ bi ñu ngi nuyu tamit sëriñ Abdou Khadir Bousso mi réalisé émission bi ak sëriñ Bassirou Ba sëriñ sëriñ Bàcc Ba <laughs> am na di fàttali bokk yi nga xam ne ñoo yónnee woon ay laaj am na laaj yu bëri yu des waaye nañ ko xaar ci fataawa yi nga xam ne day am ci biir koor gi ndax danañ ci ànd ak borom xam-xam yi suñu mbàkki abdourahman mi nga xam ne moo leen doon tontu ci laaj yi am na ci yoo xam ne dana leen ci tontu danañ ci ànd ak suñu seex naa mbàkki abdul wadood euh, sëriñ seex buso suñu seex coro buso incha allah bépp laaj boo xam ne euh, yónnee ngeen ko te ko rek nañ ko xaar ci koor gi waaye nag ñu xam ne tamit biir koor gi tamit émission ko du am waaye képp ku soxla ab laaj mën nga ko yónnee ci numéro yi nga ko doon yónnee su ko defee bu buñ ci jotee rek nañ ko mën a tontu ci biir fatawa yi am ci biir koor gi ci jumaa jumaay jumaay Touba ngir daayira Muxaddamatul Xidma xam ngeen ne koor da koy dundal bu baax a baax ci biir jumaa ji ci di def ay waxtaani diine ay tem ay duruus yoo xam ne day jàngal nit ki diinam waaye ay fatawa muy ay laaj ak tontu waaye nag di berndeel jullit yi ak taalibe yi lu mat ñeenti junni nit di fa daje ñu leen di dogal di def ay sociale yu am solo ci biir koor gi loolu lépp ngir eh, ndokkeele ko sëriñ bi rek ak it xam sëriñ fi mu tegoon weeru koor ak ni mu ko doon màggale muy lu am solo loo xam ne ñu ngi ci waajtaay bu baax a baax di ci ànd ak jullit yépp kon su ko defee sëriñ bi ñu ñëw ci suñu laaj bu njëkk mu aju ci koor bokk mi dafay laaj dal nga xamal ko lan mooy maanaa koor ci boppam ak lan mooy ab àtteem ci lislaam euh, jërëjëf sëñ Abdou Lahad bala ñoo ñëw ci ton laaj boobu dañ bàyyi loo xel mbokk yi weer wi ñu nekk hmm. li ci des Shaabaan weeru màgg la hmm. weeru ngëneel la hmm. yonent yàlla muhammad salallahu alayhi wa alihi wa sallam fonkoon na ko lool soxna Aïcha nee na lim doon woor ci euh, Shaaban mhm. daawu ko woor ci wenn weer maanaam koorug naa fi la am umu salama sax boo xam ne daa wax ne moom yonent yàlla muhammad alayhi salaam amul wenn weeru ci naafila mu woor bu mat bu mhm. dul rama jokkale kook ak ramadaan waaye foofu it ñu fàttali ci mbokk yi ne ku ci amee borob koor ci koor gi weesu woon mhm. wala sañ njaboot amee ko waxtu fay ko jot na digal leen ñu fay ko waaw ñu ngi leen soññi rawatina ñi nga xam ne dañuy jaboote ñoo xam ne dañu am gànt mhm. laaj leen ku ci amoon gànt ko nga soññi ko na ko fay balaa ramadaan agsi ndax bu ramadaan agsi te fayu ko day dugg ci ñu sàggan ñi nga xam ne mhm. bu ramadaan jàllee dañ koy teg ay daal ko da fay waaye dañ ki boole di lele nag passé bi jàllagut nañ ci soññante kenn ku ne njaboot ña nga jabootee nga laaj leen gëstu ku ci fayagu amee boo xam ko woon mm. ko daal di fay soom solo mm. bu defee nag moom mm. ak jaamu yàlla gu màgg a mm-hmm. ponki lislaam yi la bokk mm-hmm. lislaam yonent yàlla muhammad alayhi salaam xam naa ci biir saxbaan bi nga nga leer kañ lay war la koor di tàmbali waaw ok ah, mm-hmm. euh, goo xam ne ponk la ci ponki lislaam yi juróomi ponk yi lislaam am muy ñaari baati seere yi julli woor joxe asaka aj màkk la juróom yooyu la kon muy ponk bu rëy boo xam ne eh, yàlla moo ko santaane ak jaamu yàlla la goo xam ne nag du tàmbalee bu jant bi soo fenk fajar lay tàmbali ba jant bi soo muy bëccëg doo lekk doo naan doo jaxasoog soxna yooyu farat yooyu yàqu koor nga ba ko mi ngi tàmbali nag Saabaan teru na. Mhm. nekk benn fanub altine. Mhm. bu ñu demee ba altine jee nekk ñaar fukki fan ak juróom-ñeent. Mhm. la ñuy seen weer yi. ñaar fukki fan altine bu feeñee talaata mooy nekk benn fanub ramadaan bu feeñut ñu matal Saabaan fanweer àllarba nekk benn fan. bu defee nag bu tàmbulee moom euh, guddi gu njëkk gi guddi gu njëkk gi. yow mi nag fas yéenee woor balaa fajar jot na nga yéene na nga fas yéene woor mm-hmm. bu la neexee nga yéene woor bis bi rek bu la neexee nga yéene woor wér wépp mm-hmm. guddi gu njëkk gi mën ngaa fas yéene woor wépp mang weer wépp waaw jenn mm-hmm. yéene jooyu dana la doy boo fi defaatut luy loog sa koor mën ngaa feebar bari soor dagg kooku da ngay tàmbaliwaat bu maanaam bu wéree bay keer da ngay yéene waat wala nga tukki fi Hmm. boo xasee tukki koor nekkatul farata ci yow tukki bu sori hmm. kooku moom guddi gu jot da nga yéene ak musaafir bu ko neexee dog bu ko neexee woor woor a gën su su su tànnee di woor guddi gu jot daa war a yéene moom hmm. ndax moom su bu neexee bu ko subaa du du koor ku nekk ci tukki daal moom guddi gu jot da war a yéene moom yow mi dëkk nag guddi gu nekk doy na bu la neex nga yéen lépp bu defee nag loolu mooy maanaam koor jaamu yàlla goo xam ne doo lekk doo naan ci bëccëg bi lu ko tàmbalee fenk teel fajar ba jant bi so bu jant bi so ñu boobu nag ngay woor doo lekk doo naan doo jaxasoo soxna doo fi génn man yu doo focc tey ko yooyu hmm. euh, kii dafay dafay laaj ma dafay laaj bi ci topp mooy lan mooy faratay koor ak lan mooy ay sunnaam waaw bu dee ci sëriñ bi jàngale nañu farat koor dëgg-dëgg ñaari farat la am hmm. yéene ji nga yéene jaamu yàlla gi hmm. ak téye ngay téye sa bopp ci yi dogloo sa yaamu naa loxo faridataani maanaam da nga fas ñàkk lekk ñàkk naan gi jaamu yàlla la mm-hmm. xam nga nit yëblaat mën naa xëy ba ngoon lekkul naanu te wóorul mm-hmm. ndax ngi mu woor da nga koy yéene yéene ci jaamu yàlla def sa ndigal sa borom mm-hmm. waaye nit ki nga xam ne masalan tey daa tëddoon biddanti hmm, te bi muy tëdd yéenewul dara hmm, xëy nelaw ba jant bi so waaw mën ngaa jàpp ne naanu waaye wóorul ndax yéenewut ci loolu woor am na koo xam ne régime la yéene ni ñu ko ne wàññil ni ko sa sa sa sa pois dafa bari mu xëy ba jant lekkul naanu ngir bëgg a wàññi ko kooku du yéene ci tax ñuy wax lii da nga yéene jaamu yàlla ba noppi nag téye sa bopp ci lépp lu tax a dog fexe daal euh, fajar ba jant bi so lekkoo fi naanoo fi jaxasoo fi wàcc woo fi génne woo fi mosi yooyu yëpp dafa fi dara su boobaa ñaari farata yi la hmm. sunna it bokk na ca yeex a xëdd maanaam xëdd ci boppam sunna la ay yeexe ko it sunna yeexe xëdd nag mi nga tàmbalee min wi maanaam saa bu guddi gi xaajee boo lekkatee dara te yéene ci waaw boo ci lekkatee dara te yéene ko ci ñi fii nag nit ñi dañuy yéene reer xëddu <laughs> ngir mu doon xëdd da nga koy yéene nga ko waaw waaw ba noppi nag la gën mooy mu doon ca mujjub ci sudu su axir nga xam ne boo xëddee ba noppi daal boo toogee lu mat fukki minute ak juróom wala nangam ñu ne jàpp jot na loolu mooy bi gën moom waaye bu guddi xasee xaaj rek boo lekkee yéene ci xëdd bu nekk xëdd bu kon xëdd googu ak yeexe ko loolu sunna la ak gaaw dog ginaaw bu jant bi sooyee gaaw a dog looy sunna la mhm. yi bañ nga naa damay nit bu mu lëndëm këriis mhm. ndax ki la waxoon ne la wooral mu wanal ne bu jant bi sooyee dogal kon gaaw wane ak topp mhm. foofu nag naa faral di wax loo xam ne dama koy bàyyi la wax yóbbante say blaat ci ndaw ko ndaw ñi mel na ñoom gaaw dog mooy sunna waaye gaaw a ndogu du sunna moom gaaw dog moom sunna la mooy lekkub tàndarma rek. nag tàndarma naan ndox. naan ndox hmm. waaw loolu moom boo amul tàndarma nga naan ndox goox ñetti goox dem julli ji loolu moom mooy sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Hmm. na ci nag léegi dañuy ndogu door a julli moom. waaw tiim yëf yi maanaam lekk lekk ba kii doog a doog a dem taxaw. mais sax dañ cee julli gi <laughs> donc moom dañ bàyyi xel ne gaaw a dog daal sunna la kon hmm. gaawa a dog yéex a xëdd xëdd ak yeexe ko ak nag téye soo làmmiñ ci wax ju amul njëriñ waxuma wax ju bon de wax ju amul njëriñ jëpp wax joxe ne amul njariñ waaw maanaam nit ki bu téye saw làmmiñ ci wax ju baaxut moom daa war ci waxtu yëpp ak jamono jëpp mm-hmm. bu ramadan dikkee nag dañu bëgg nga yokk ci moom kafe yeeg yëpp nga bakko mm-hmm. di wax rek jàngal xuraan jàng xasida di tudd yàlla di teewe jataay xam-xam yi muy dajat daara ji def yu mel noonu mm-hmm. yi def ci ji ak yi bata barab yu mel noonu bañ a sànq sa waxtu ndax boo xam ne boo ci sàgganee ba mu rek ñàkk nga lu bari yooyu muy sunnaam jërëjëf loolu euh, leer la lool euh, laaj bi ci topp mooy dafay laaj lan mooy yàq koor. waaw yàq koor mooy nga def luy tax a ku woor bu lekk wala mu naan te tey ko. kooram yàq na. boo ko tëyut ne yàqu na. waaye da ngay àggale te fay doo ci am bàkkaar ndax ko. fay. naka noonu ku mabbu yéene xam nga fas yi nga fosoon yéene. boo digg ba digg bëccëg nga ne yéenetoo dara. donte lekk ko naanoo. koor ga yàqu na. wala wàccu fi te tey ko. wàcc moo xam yaa fexe ba daf lu tax nga wàcc loolu day yàq ko hmm. génne masiw wala man yu di fo ci ay cëram ba man yu génne wala masiw yooyu day yàq ko hmm. léegi la xam ne ku ko def sa koor yàqu hmm. am na ci yoo xam ne boo ko tayee danga nga fay kafaar am yoo xam ne fay rek ci war mel ni mën ngaa dog koor goo xam ne bi ngay lekk jaarale ko sa gémmiñ nga xam ne ubbaan da nga koo jaarale say baxe bakkan wala say nopp boobaa koor gi day yàqu fay rek ci war bu fekkee da ngaa dem lekk wala nga naan nag te tay ko amoo benn ngànt koor ga yàqu na war nga koo fay war nga kafaara. da nga kafaara kafaara mooy nga. kafaara moom ab day daan lu ñu teg. mooy daan yu ñu teg nit ki daal waaw nga xam ne bis bi nga xam doog na tey ko. Mhm. mu woor ñaari weer. te mhm. ko wala mu leel juróom benn fukki miskin mhm. ci loolu benn bis bu ne la nga. benn bis boo documenté tey ko da nga ko wooral ñaari weer yoo toftale. wala nga leel juróom benn fukki miskin maanaam yi nga xam ne niru na luy yàqu koor te te yàqu ko nag yooyu mooy yan. waaw yooyu de bari na yu mel na tey nit ki togg saxaar si koy dugg teyu ko wala kuy liggéey ci ciment poussière poussière bi di ko dugg waaw hmm. du yàqu koor hmm. ku wàccute teyu ko du yàqu koor ci wanaatu dara hmm. waaw léegi nit xelam tey fekkee daa wàccu yëpp jàkko du yàqu koor yooyu mu yenn la ci yi nga xam ne man ay nuru yàq koor te du ko yàq wala boog euh, koo xam ne da doon lekk bañ ne jàpp jot na lam sexoon mu yàbbi ko xam ne jàllale wu su boobaa it koram koram baax na. lu mel ne socc tamit ak pâte dentifrice ak yooyu. pâte dentifrice socc bu tooy ak pâte dentifrice ñu bokkaate. Mhm. dañuy sib ku woor di ko def. Mhm. ndax tooy socc bu tooy bi day ànd ak ndox ndox mu mën na rëcc jàll. Mhm. day am ko dentifrice it noonu. te yooyu sax li ci gën nag si iblaat mooy nit ki yooyu liñ koy doyee dëgg-dëgg boo lekkee ba noppi. nit ki bu xëddee ne dentifrice socc. bu dee bëccëg la moom bu socc noonu socc boobu waaye bu dee dentifrice moom booy door lekk foofu lañ gën soxla. lekk ba noppi daal ñam wi des sa gémmiñ nga bañ mu yàgg sa say géñ di ko yàq nga fexe ba génne ko boo ndogoo bala ngaa tëdd nga daan firisu mais loolu doy na ci kon bëccëg soxlawu ko waaye nag socc moom bu dee socc mhm. dañ ko santaani sax nag koy bëgg loolu koy faral di socc rawatina ci ramadan euh, bokk bi dafa laaj mu ne lan mooy atteb ki nga xam ne dafa woor waaye bëccëgu koor gi daal da ko nuur ci ay am fo maanaa ngir dàqe ko koor benn ma ngay seetaan ay film wala théâtre yu bëri wala ma ngay carte wala ma ngay wure wala ma ngay mariage wala ma nga ca làmb ja moom daal dana fexe daal ba bëccëg bi moom jeex waaye nag jeexalewu ko ci jàng alquran wala def lu baax wala dara sunu sëriñ de radiallahu anhu la muy jàngaloon hmm. mooy fa sawmu ay yasuuma kullu udwin an kulli ma yufdi fatan li sahwi hmm. koor dëgg dëgg tax ñuy wax amal nit ki mooy cër yëpp koy def lépp jur jëme ci njuumte hmm. ko def kon say bët na woor mhm. bu mu xool lu say nopp na woor bu mu dégg mhm. say tànk say loxo yëpp na woor loolu la mhm. ba ci say xalaat nee say xalaat na woor bul xalaat sufaan léegi nag yooyu boo ko wooree ba noppi nag di seetaan wala ngay déglu wala ngay foo jaaxaan yooyu charan ginnaaw lekkoon naa noo dafoo yi daf dogloo dañuy wax ne woor nga saraan waaye xaqiqatan wóoroo mooy ci charia kenn du la wax ne la fayal bi mhm. waaye nag lañ cey séenu ci yiw moom tuuti nga ci am bu fekkee dañ ci am dara ndax caaxaan yu bëri waaw sëñ bi nee nañu bari waa na ku woor ànd ak mbooloo mhm. du ci am dara lu xiif ba mhm. li ko waral mooy yi mel noonu woor lekkoon naanu ba noppi nag ne ci ay caaxaan sa bët wóorul say nopp wóorul say loxo wóorul say tànk wóorul tax ni wax yéen yàlla Muhammad alayhi salaatu salaam noonu na man lam yada qawla zuuri wal amala bi hmm. fa laysa lillahi xaajatun fi an yadaa taamahu wa sharaba ku ci bàyyiwul wax lu dul noonu ak def ko hmm. yàlla amul soxla ci sag bàyyi lekk ak naan ko hmm. ne kon dëgg dëgg nag bu ñuy wax woor nit ki dàq koor euh, sëñ Blaan njuumte lu rëy la ko dàq te ñoo rey sunu sëriñ moom mi nga xam ne moom yaa xayra dayfin ataa bil bishri doon wax wa sahlan bu dàqut da ko lu xaj buy mu di ko tàggoo yaadal busharati lu mel ne ak demam bu sañoon mu des. loolu mhm. loolu loolu mooy mbir mhm. waaye dañuy dàq koor loolu waxi ni kii passé la. Mhm. boo xam ne li ci nekk mag ñu baax ñëpp dañ ko daan dañ profité. bu dikkee lu ñu def lu baax dañ ko daan yokk bari na mag ñoo xam ne fii. dañ jàng seen wërd ci alxuraan bu ramadan dikkee wërd bi kamil lay doon. xanaa ba ñuy fas yéene bu dem yokk seen waxaf. waaw dañ yokk seen waxaf. dañuy naa fi la guddi. danañ jàng ayat kaamil jàng ay juróom isib juróom ñaar isib nisif ñaar fukki isib kaamil la ñuy jàng bis ak yu baax yi ngay booleel loolu koor moom loolu la parce que la boo xam ne da ngay fexe buy dem na la yóbbaaleel ba diis kenn ci aw yiw loolu nag kuy seetaane caaxaan ak déglu caaxaan mënu ko am lekkut naanut danañ wax ne charaan war na waaye nag xaqiqatan li tax nga jot ci yoolu koor defoo ko waaye mën naa moytu jërëjëf sëriñ mbokk mi mu ne lan mooy attem ñi nga xam ne dañuy woor ba noppi maanaam dañuy dañuy bañ a woor ba noppi te li li leen tee woor mooy dañ ne ñoom kat liggéey bi ñu liggéey diis na diis goo xam ne mënuñ koo boole ak koor lislaam bokkut ci lii tax ngànt yi tax sañ a woor sa sañ a woor hmm. ab liggéey liggéey bokk ci hmm. wax nañ ma ne Mawlana Cheikh Salihu Mbacké xam daana wax ci dongo yi hmm. ku ci mën a boole liggéey bi ak koor gi nga boole ko ku ko mënul nga bàyyi liggéey bi te woor ndax ndigul yàlla la mooy li noonu léegi nag nit ki mën nay liggéey bu liggéey ba digg bëccëg ba ngànt dab ko sañ naa dog moom waaye ah, kenn sañ te wax ne tey daal duma war ndax liggéey bi mu war a tey day metti uh-huh. su ma du ko mën a boole oh. waaye nag boo waroon liggéey ba digg bëccëg nga sonn sonn boo xam ne boo dugg du baax ci yow uh-huh. sañ naa dog waaye du layu liggéey bi daa metti kon du ma woor uh-huh. ndax nag wa man yattaqillaha yaj'al lahu maxrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib foofu la sukkandiku ne ku ñu liggéey liggéey boo xam ne mënta ànd ak jaamu yàlla bàyyi liggéey ba te jaamu yàlla mm-hmm. bu yàlla rek taxee yàlla dana la wuteel lu gën loolu xitma daal moom nekk ca warut a tax nga ne nga laayee ko ngir bañ a war mm. yàlla la mm-hmm. yàlla moo jiitu ci ndigal yi mm-hmm. bu ko boo ba tëlë ci nag wàcc na la moo tax dañuy tere nga ne bis bi yàlla duma ko war ndax liggéey ba day metti dañuy tere nga naan tey jii dama baaxoo siburu bis bi bu ma waree ba tigee dinaa siburu lu tax nga wala jigéen ñi naan dama baaxoo gis baax bu wër bis bi jotee. Hmm. da ngay woor rek ba mu fekk la ca. bu la ca fekkee nag nga xam ne yàlla yàlla yàlla ko dog. Hmm. mu la woor la woon ko dog. Hmm. jërëjëf euh, euh, mbokk bi dafay laaj mu ne ndax euh, dana woor ki nga xam ne ab docteuram da ko tere mu woor maanaa ngir feebar. ngir feebar su boo xam ne ab julit te xam na loolu. moom da koy wàcc. bu dee feebar joo xam ne buy wér la day nekk su wéree fay. bu dee feebar boo xam nag mënta ànd ak koor te amuñ yaakaar ci dana wér mhm. dañuy jàpp ne kooku koor wàcc na kooku la ñuy wax ne sopp nañ bis bu set mu xëy lele mhm. xëy joxe mu joxe mudd mhm. tolloog six cent vingt cinq ci ceeb maanaam mu xëy joxe ko ñaata ko wàcc loolu liibar ak xaaju genn wàll liibar ak xaaju genn wàll liibar waaw ki nga xam ne daal dafa feebar bu mënta woor mënta woor mënta woor ci benn jamono ci jamono benn jamono mënu koo fay tamit waaw saa su xëyee na joxe liibar ak genn wàll liibar liibar ak xaaju genn wàll liibar waaw léegi nag loolu loolu moom la ñuy wax it koo xam dafa màggat bu ñu woon mm-hmm. mag ñoo xam ndeysaan dañoo dem ba jeex war mm-hmm. wàcc na leen mm-hmm. ak koo xam ne aw mar feebar mar la yor mënta toog ñetti waxtu naanu bu ko def xam kooku war wàcc na ko su dee jamonoy sedd dana mën a woor bu sedd dikkee mu woor su fekkee amul benn waxtu bu mën a woor ci at mi nag da koy wàcc wala ñu nga xam ne dañuy yor ulcère boo xam ne waaw ah, mu loolu ci wéri day dugg feebar la boo xam ne gis nañ ne mënta ànd ak koor te it jàpp nañu du wér kooku na ko bu waxtu di dikkee nga fay. lan hmm. la ñuy bu defee nag ñi nga xam ne ñi nga xam ne dañoo wéradi ba mënuñoo woor wàcc na leen. Hmm. bu dee jigéen juy nàmpal ak jigéen ju tollu diggante bu mënta woor. Hmm. moom dañ koy teggeel koor gi waaye dana fay. waaw day dog waaye dana day fay. ki nàmpal ak ki ëmb day fay. ki du fay moom mooy ki nga xam ne daa mënatu woor. ndax ko magee wala ak wéradi goo xam ne du la wér. te mënta ànd ak koor jenn jamono. ñu war wàcc ne yàlla li muy digal lépp ñi ko mën la ko digal uh-huh. waaye nag sopp nañ mu def lee uh, ki ñi nga xam ne nag moom bu koor jubee rek ñu ñu ñu keree feebaru estomac moom maanaam ñooñu luy seenu atte maanaam nga xam ne daal bala ñoo bala seen estomac bee yëngatu daal moom koor daa jub <laughs> ñoom xam ne war day taxaw wér <laughs> boo ko waree ngir yàlla ci des nag dëgg-dëgg sëñ ñoom laa war métti wut de mm-hmm. <laughs> métti wut noonu laa bëgg a wax mm-hmm. te nag ab jaam yàlla mi la moom fukki weer ak ñaar mu ne la del ndékki di añ di reer bu la neex sax njogani ko hmm. am wenn weer mu ne la bëccëg bi rek bàyyil ma ko fi ah, dem bàyyi xel ku baax la de wax dëgg wax dëgg yàlla kooku te la la muy wax lépp nag benn intérêt intérêt nekku ci hmm. yow yaa ci jariñu fi ne adduna ji fi ne bu dara it machine boo yor laaj na léeg-léeg entretien hmm. dalal ko xool muy doxee day mel ne koor loolu di fonctionner vingt quatre sur vingt quatre mu wéy bu faw waaye léeg-léeg ngir féexal biir bi mu xaw a woyof da lay dimbale. Mm-hmm. te lu yaay mën a moom bu dog jotee nga sañ a mm-hmm. kon yow ma guddi gépp mën ngay xewlu donte nag bëgg naa mbokk yi bàyyi xel it ne. Mm-hmm. woor du soppi rek waxtu yi lekk. ñu bari loolu jàpp de. soppi waxtu lekk. waaye wàññi lekk la. fa ñu bàyyi xel loolu mën naa hésité moom ndax dépense koor yi daal moom waaw fii ne koor yi dañuy gëm ne dañoo war a dem duggi duggi duggi koor dëgg dëgg daa waroon a wàññi dépense mm-hmm. waaye maal asaf fii ne li xew ni mooy duggi duggim koor da ngay dem duggi duggim koor la bu jant bi sooyee ba mm-hmm. fajar mm-hmm. dañuy boole añ bi reer bi ndékki li njogonal li yëpp dañ ko def diggante bi loolu wér-gu-yaram fekki ko seen ah, maanaam fi ne bu dog jotee loolu ñuy tiim noonu loolu ndogu la seen laat du dog nit ñi dañuy ndogu toog tuuti newaat newaat leneen lu ñu ci doon dogu. Hmm. guddee ñu ne mbëstal bu ñu jëlee ñu ne ñu ne xëdd loolu mooy xaju ci biir. waaw maanaam na rek ñaari lekk benn nga dog tàndarma ak mburu tàndarma ak ndox. Hmm. boo jëlee ba nappi reer bu ñu jëlee nga xëdd. ci nit ñi yemoon loolu duñ dañuy noppalu ñaara ba yëpp boobaa jiba yi dana dana xaw a féex. Hmm. ñu mën a waajalal yeneen yi waaye fi ne boo ko seetloo ñu ëpp dañuy topp seen xiif waaye lañ ci togg sax duñ ko jariñ. dañu lu bari lu ñu romb rek lu ñu jàpp ne gémmiñ la jëm ñu ne nañ ko waajal bu ñu war bu ñu dogee dañ ko soxla mm-hmm. bi ci des it nag diggante fi jant bi sooyee ak fajar sëñ bi am na loo xam ne xaju fi mm-hmm. am na ñam woo xam ne boo ko lekkee war ngaa mën a toog daanaka wan quatre heures lekkaat mm-hmm. léegi nga ko toog trente minutes lekkaat dara toog baaxut ci wér gu yaram sax baaxut ci wér gu sëñ bi waxoon na ne am na ci nit ñoo xam ne boo leen fekkee bu Ramadan dikkee ba nga fekkee la ñu ndogu da ngay defee ne ay nag lañ da nga leen di yërëm sax boo leen di xoolee wa ba'duhum ya'kulu aklal baqari hmm. waaw nee na bu biir bu fees dell noppee nelaw rek nga xam ne ñaari bu ñu nooyi sax dañuy nga duutuñ amati pakk maanaam du fi ñu fi fi fi noogi waroon a jógee <laughs> duy nañ ko ñam ak ndox ba mu fees sëñ hmm. bi nee na ñooñu dañoo waru hmm. waru mooy lan jàpp ne yaa ngi ci dara nekkoo ci dara faw ñu bàyyi xel yooyu maanaam woor wàññi lekk la waaye du rek soppi programme bi man daal daanaa añ daanaa ndékki añ reer fas naa yéene bu koor gi dikkee dinaa ko def ci beneen façon wala ci yeneen waxtu ñaari hmm. ñaari waxtu doy na ci sëñ bi hmm. lekkal bu ginnaaw bu jant bi sooyee bu ñëwee xëddal ndax dundul sunna waaye ci diggante bi yëpp nag mën naa ñàkk waaw loolu mën naa laa biré neexut dégg hmm. ñu bari mën naa ndax moom yàq gi bëri na ci koor gi lool. te de suukar su bari si jamono yore di suukar la nit ñi toll xorom ñett yi gën a lor nit ñi ci la bokk hmm. suukar xorom ak diwlin ak diw loolu kër borom xam-xam bi docteur yi wax nañ ko ba tey hmm. yooyu nit ñi nañ ko war a mooy tawaate na ak guddi nga dajale yooyu yëpp yi ñenn ñam yu diis yi loolu bari na li muy jur nit tëdd tëdd jóg hmm. lu ma tax moytu la te koor nag daa waroon jur wér wér geeram nit ñu baax ñi bu ñu masaan woor bu koor gi jàllee dañuy sawar dañuy gën a sawar ci jàmm yàlla gën a baax ndax li nga ci war ci yu baax boo ko boo ko fonkee rek du mënta ànd ak lekk gu bari gi Euh, mbokk mi dafay laaj mu ne ndax ki nga xam ne day faju ci weeru koor te woor ndax sañ naa li ñuy wax perfusion wala ndax sañ naa pikiru wala li ñuy wax pompe asthme sañ na koo jëfandikoo. Hmm. waaw ci masa bu Maalik de moom bu dee pompe asthme ak perfection dañ yàq koor ndax bu dee tax taxawaay aw hmm. yi ñu def ci kii ne moom yàq koor. Hmm, pikiir yi ñu def ci yaram noonu. waaw yaram noonu bu dee. kuñ sampal biteel boo ko seetloo day taxaw taxawaay lekk ñaar ñu ko def yëpp duñ lekk duñ naan kon day mel lekk ñoom dañuy wax ne yooyu day yàq koor mook ku ñu ku ñu ku ñu ku asma dañuy wax ñoom ne bu saa bu ko kiris bi daaneelee mu pomp day dog bu ko defee nag bu kee mu fay bu ko dëkkee ba nga xam ne mënta woor day day jàpp ne war wàcc ne ko naka noonu ay tuufoo yëpp li ci gën ko war na koy def guddi waaw ak toqal yi toqal ci bakkan yi yëpp ndax yooyu ay buntu la yuy dem ba ci boole gi mhm. te dañ loo ci def bàggee ci boole gi day yàq koor waaw dañ ci masab mali day yàq koor yëpp mhm. maanaam saa boo ci defee dara mu àgg sa bu yëkku sa yi mhm. kon daal pikiir moo yàqul koor waaw pikiir du yàq koor moom euh, laaj bi sax tontu war nga ko ci ginnaaw max naal kafaara lay laaj ak kañ lay war waaw kafaara waaw moom mooy ak ak ak ay daan la ñuy teg nit ki ci bu defee yi mu la wax nii juróom yi bu ci defee benn lekk naan jaxasoog soxnaam ak génne man yu ak mabbu yéeneem juróom yi boo ci def bëccëg bu ramadaan te tay ko te boo benn ngànt mhm. sa koor yàqu na te kafara waral bo bis bi nga ko def da ko waral ñaari weer danga fay bis bi it nag ba napp woor ñaari weer yoo toftale wala nga leel juróom benn fukki miskin hmm. jërëjëf euh, bi dafa laaj mu ne lan may àttab ki nga xam ne dafa woor waaye daal xas day xas xas na nit ñi day topp di xaseeka sàccaka euh, maanaam daal di def loo xam ne daal moom daganut rek fu mu toll daal mi ngi jëw aka xasaka di sàcc alal nit ñeeg ndax kooku ndax koor gi dana wér wala den waaw mooy li ñu wax sànq ne yéen salaam ak wax ne ku bàyyiwut jëf wax judul noona wala jëf judul noona mhm. yàlla amul soxla ci sa bàyyi lekk naan ci charia moom duñu la wax ne leen woori waat mhm. waaye li di jëriñ amoo ci mhm. dara yow wala pertement la c'est blaat yéen doo xiif ak mar ba noppi bi ñuy bind ñu bind la zéro mhm. loolu moo tax yooyu ko waral maanaam fexe nga sa biir woor waaye ci koor gi ci sa biir la yam mhm. bët yi wóorut làmmiñ yi wóorut loxo yi wóorut tànk yi wóorut ku doom yiw mm, la euh, bokk bi dafay laaj mu ne ndax euh, li nga xam ne mooy la sart la buy wéral koor wala dafa doon loo xam ne dañ koy def ngir jaamu yàlla rek xam nga ramadan daa màgg-màgg goo dañoo bëgg ngay dundal bëccëg yi ak guddi yi mhm. bëccëg yi ci koor ak daf lu baax jàngal faan saraxe yu baax yooyu guddi mm-hmm. yi nga la ko naafila mm-hmm. waaye nekkul nag ne ku woor faaw da ngay naafila mbaa baax mm-hmm. ndax naafila yi ñu wax ci koor nag seen gaat mawla euh, sallallahu alayhi wa sallam da ko dëkkee woon fukki raaka saa witar mosu ko bàyyi soxna Aysa mosu ko bàyyi ci dundam ramadan ak bu dama da ko saxaloon nit ñu baax ñëpp noonu la wér du Mawlana Cheikh Ahmadou Khadim bi mu jox bokk na ci ay sartam naafila alxuraan naafila googu ba mokkale alxuraan boo ko mokkalu nag donte da ngay jàng fay ñetti li xalaas baax na waaye fukki rakka ak saw bi tamit nga jàng kon loolu ku ko tam moom bu Ramadan dikkee du ko jaaxal ndax du la ko doon def kon bu Ramadan dikkee da ko yokk mën nga ko yokk nag tahajjud boo nelawee tuuti jóg ci guddi yi hmm, dafa say naafila woo xam ne fexe bu balaa Ramadan jeex daal lépp li amu ci yiw nga sëf ci ba diis hmm. loolu am solo naafila ci biir jumaa yi déglu alxuraan mooy gën ci nit ki wala naafila këram waaw ci mos bi dañuy wax ne naafila moom dafa ko sa kër moo gën julli farata yëpp jàkkaa ci gën la yëpp kër ci gën dañuy wax des ñaar fajar bu dee jumaa yi am na ilimaan am kuy naafila mbooloo dafa dem yow mën a toog sa kër mën a naafila nga naafila sa kër moo gën waaw waaye nag buñ bàyyi jàkk yi tëj moom kon kon kilifa yi war nañoo samp ay jàkk samp fa ilimaan ñu jiite mbooloo yi nga xam ne am na ñoo xam ne mënuñu naafila seen bopp am ñoo xam ne seen woy demul noonu bu ñu berew seen këru naafi la ah. waaye ki melut noonu moom li gën mooy mu toog këru naafi la ah. hmm. euh, lan mu mbokk bi itam mu ne lan ngay labiré euh, ñi nga xam ne xëy na su koor ñëwee dañuy xotti war mooy koor maanaa nekk ci pénc yi di jaay ay lekk euh, ak ay naan ba noppi di lekk nit ñi di leen gis maanaam daal da ñëw ci li jege fi ñu dundale weeru koor daal mu mel ne eh, ñii dal moom wóoruñ waaye daal mm-hmm. laqatuwuñ dal ci li ñu def waaw ah, loolu xam nga lislaam daa bari ay teggin mm-hmm. dañuy sant gis na jigéen ñi nga xam dañu am ngànt sax mag ñi fii ni ñu ñare mm-hmm. weer dana ba jeex doo xam kan ci jigéen ñi moo fi am ngànt ak ko te mooy daanaka duñ dugg weer te loolu dalu leen waaye ngir doo ko xam ndax li ñu yare ma nii mooy nii yu mel noonu boo ci nekkee da nga naan cel boo bëggee dem lekk wala naan da ngay làqatu. làqatu lekk ngir wormaal ñi nga xam ne dañoo war. loolu lu teggin islam la bokk ab jullit warut xotti war mooy loolu ki wóorut ngir ngànt sañ naa jëfandiku waaye nag buy jëfandiku it na na bàyyi xel ñi woor. Hmm. waaye toog seen kanam mu mel ne ku leen di ñaawal loolu moom duy teggin islam. rawatina ci penc mi penc yi ah. tubaay sax dañuy gis ñoo xam ne moom dafa mel dañ ciy ëppal dañuy jaay lekk di lekk di leen gis. waaw loolu dama ci liggéeyu mu xam ne waroon bokk nag. Hmm. maanaam ni ñuy teree yi yeneen yi yu mel noonu ñu di tere mhm. am na njaay yoo xam ne moom di ko di ko tere bëccëg ku kenn jaay foofu mhm. di tere kuñ fa gis ngay lekk yoo xamal ne lii du teggin islam sëriñ bi gërëmu ko mhm. sëriñ bi gërëmu ko ñi e, bu ñu wooree sax gis nga dañuy tàggat nit ñi ba li ñu togg sax ko mos ndax day daa bokk ci liñ ndax boo mosee mën naa jàll te na ci teggin ni lislaam daal saa boo nekkee ci barab nga wormaal ñi nga nekk bokkal na ci barab bi ki am ngànt wóorul na xam ne jullit ñi war moom buy lekk seen kanam mi ngi leen di lor mm-hmm. te nit du lor mbokk jullitam kon laqawtu lekk yëpp bi ci des it lekk nag sax def ko ci mbend ak yooyu sax du bokkut ci mm-hmm. bokkut ci liñ gën a tàmm mm-hmm. waaw am na ci yi ñuy wax tudde muro atu dafa dàqoonte moom bari yoon dañaa wax ne kuñ gis ngay lekk ci mbedd yenn kii kenn kenn kenn du la ko kenn du la ko duñ la wóolu ci yenn wala doo doon seere ci yenn yi ngir ñàpp loolu dafa xaw a xeebu yooyu yëpp nag mën naa tax ni ko ko moytu ndax lekkin nag rafetul waaw kooku daf fu ne war naa toog daf ko bu ci des it teggin yi war a àndal mooy aw ñam dañ ko war a warmaal mhm. ndax mën nga lekk muy ruus dox ci suuf ngay dox di rawatina dëkk bu mel ne Touba ak mm. ni ni ko tagg ci diine maanaam mm. bëccëgu weeru koor ñuy gis ñuy fësal loolu waaw yooyu yëpp daal mën na bàyyi xel mm-hmm. teggin islam daa mat a sàmm mm-hmm. islam dafa am teggin am warmate sëriñ Touba radiyallahu anhu ñi gënoon a sàmm yooyu ci la bokk mm-hmm. kon nag ku ne ci barabam war koo sàmmale waaw dana tax nga am cër dana taxit nag euh, nga bokk ñi mu jërëjëf kon sëñ bi xam naa ñu bàyyi la nga kàddu yooyu mujj daal ngir laabire ko bokk yi ci ah, weeru koor bi di soññi sama bopp di soñ ñëpp moo mm-hmm. waxoon nañ bàyyi xel bori koor yi mm-hmm. ñaareel ba it waajal weer bi mm-hmm. ci fóot suñuy xol ak wàccaay yéene ju rafet bañ jàpp ne koor daal léeg-léeg nga dégg nit ñi ñoom dañ koy jàmbate ay koor geeg naaj tàngoor weeg léegi naa man damaa war dem dëkk sàngam ak naa war tuxu jeeg gis nga koor sëñ bi daal <laughs> mënoo fexe ba mu ba mu yomb man nekkoon naa dañu saasam réew léeg-léeg de ci dëkk boo xam ne fii loolu dañoo foog ne bu ñu nee mu neex rek <laughs> nekkoon naa ci dëkk boo xam ne moom mën ngaa wor ba nga doon naan ndox hmm. waaye nag da ngay xiif bay lox waaw ah. bay lox hmm. sedd ah. hmm. ne fi jàppee ne bu tàngul rek neex na déedéet bari da ngay xiif bu damoon def dara kon kon yàlla bind noonu koor bu defee nag jàppee ko ak jaamu yàlla roy mag ñu baax ñi ridwanullahi alayhim ci daan ko gàttandoo bu dikkee nga bëgg ci di ko dundal sallallahu alayhi wa sallam xam nañ ci tab la woon bu lul bu lul jeexal waaye bu ramadan dikkee day mel ne rek foo takk takk weesu na ko hmm. jëwriñam ji radiyallahu anhu loolu lañ ko xamee woon hmm. bu ramadan koor moom di yokk say dépense di dimbale nit ñi lu ci am solo la léegi nga yokki dépense di yàq ak yooyu dimbale nit ñi daf ko ci nit ñi hmm. nga bëgg wax ndax ku dogal aji woor am nga tuyaabay koor kon bàyyi xel lu am solo moo tax mag ñi baax ñi dañoo bokk seen i yitte saa bu ñu wooree ba ngooy danañ fexe ba dogal kon jataay yu am solo yii muqaddamatul xidma def ci koor gi mm-hmm. am na solo ndax ku ci jàpp yit fi mu ne jàppal ne dogal nga nit mm-hmm. ndax loo ci def rek nga dog jot nit dog ci wala ay nit dog ci mm-hmm. am nga tuyaaba yi toll ne koor gañ am loolu nag yiw yiwutu jaax la boo xam ne war dañ ko bàyyi xel foo romb lu baax ci koor gi ñu cee def fexeel ba sa wàll génn Sëñ Tuubaa li yare woon ay taalibeem mooy fu lu baax nekk jàppale sa alal yëpp yu baax yépp nag kon loolu maa ngi koy loo sama xel euh, sama bopp di ko bàyyiloo xel bokk jul yëpp ñaan yàlla ñu àgg ci koor gi jàmm weesu ko jàmm li ci nekk ci aw yiw lépp yàlla nañ ci yàlla doxal tawfeex bañ jot ci dañuy dellu di siyaare ak di ndokkeel Cheikh Mamadou Mountakha taxawaay yu rafet yu am solo yi nga xam ne baaxoon na ko taxaw ci koor gi ni ko baaxoo taxaw ci lépp hmm. ci diine yi rawatina koor ñaan yàlla sàmm ko dooleel ko waaye may ñëpp jullit ñëpp ñu àgg ci ak jàmm dundal ko jàmm la ci nekk yëpp jot ci maa ngi jéggul ñëpp nag di baalu ñëpp ak di sàkku ñu baal ma mm. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu jërëjëf sëriñ Mbacke Abdourahmane ci kaddu yu am solo yi ak labiré yu am solo yi euh, ñi ngi ñaanal Maulana Cheikh Mahamadul Muntaxa moom it ni muy dundale weeru koor ci xasida yi ci waxtaan yi diine ak ci joxe alalam ndax li nga xam ne mooy ndog yi ñu def ci jumaa ji moo ciy jiitu euh, bokkam yu baax yi tàbbi ci waaye ak jullit yi nga xam ne it ñu ngi ciy def seen alal ñoo xam ñu nekk ci biir réew mi rawatina waa bitim réew ñoom ñëpp ñu ngi leen di soññ kon ñu xam ne tiyaaba ju rëy rëy la ni ko sëriñ bi waxee léegi di sant mbokk yi nga xam ne ñoo ñu doon topp ñëpp ci MKTV ak GMT ci seen émission gàggantiku bi nga xam ne euh, dañ ci doon indi gàggantiku ay bind yoo xam ne dañ koy waajale koor kon su ko defee ñu xam ne émission bi kon biir koor gi du am biir koor gi du am waaye nag képp ku bëgg ab laaj ñu tontu ko ci biir fataawaay fatawaay yi am ci biir jumaa ji mën ngaa yónnee sa laaj ci numéro yooyu ñu ñu joxe woon rek xam naa sëñ Abdou Khadir dana ko avisé kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax di gërëm Ablaye Lo mi jàpp ci liggéey bi waaye di sant sëñ Abdou Khadir Bousso mu ngi xam ne mooy réaliser émission bi suñ bàcc ba mi caméra maanaam di ñaan sunu borom tabaraka wa taala ñu dugg ci koor gi ak jàmm te defal ñu wér ak kattan te musal ñu ci lépp loo xam ne dañuy juumloo wala lépp loo xam ne day indi ngànt ba tax duñ mën a joxe ponk bi niñ ko mënee te suñu borom defal ñu tawfiix ak taysiir asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waj'alhu maskana xurujin min dulam linnuuri wakfi anhu kulla man dalam